xam nga li ñu nemmeeku mooy euh, ñi ngi dëgmal li ñuy wax élection teritorial mooy élection gox-goxaat te bu ngeen seetloo ay at ci ginnaaw dañu toogoon rekk naan pouvoir bi naan coalition Benno Bokk Yaakaar bëggul dem élection mais tey li ñu ràññee seetlu ko mooy opposition bi ci boppam moo bëggul dem élection ndax ba ñu njëkkee tànn datu élection yi ñu toxal ko ngir mën a waxtaan classe politique bi yëpp toog ñu def seen dialogue politique ñu waxtaan ñu jóge ci loolu ci biir dialogue bi ñu ne nañu def auditu fichier bi nañu évaluer processus électoral bi loolu lépp ñu def ko am ci ay ponk yoo xam ne ñëpp d'accord nañ ci ñu jël ko dugal ko ci biir code électoral bi kon bu loolu yëpp amee ba tey ñu jàpp bés bi nga xam ne woor lañu loolu la ñu war a dem élection ñu jóge ci loolu ñu ne nañu déposé liste yi li ñu seetlu tey mooy opposition bi def na ñaar bëgg na sukkandiku ci li nga xam ne yoon da koy def ngir nëxasal élection yi ndax ku ne Barthélémy Dias dañ ko woo ndax dafa nekk candidat loolu tegul fenn ndax koo xam ne yoon woo na la ca mois de juillet non seulement demoo nga ñaan ñu dàq ko yoon nangul la loolu dàq ko ba waxtu bi waxtu ba jot nga ne dañ ma woo ndax dañ koy politiquer loolu foog naa baaxul rafetul mais beneen bi mooy ci li ñu ràññee seetlu ko biir Benno Bokk Yaakaar opposition bi ci seen bopp ñoo def tayeefu déposer liste yu bon pour bañ a dem élection waaye nag li ñu seetlu ci Sénégal mooy alternance maanaam nguur guy changer loxo ci démocratie la mujj jaar ci élection la mës a jaar te ñun en tant que citoyen am nañu ñaari taxawaay taxawaay bi ci njëkk mooy li ñu suñu wàllu citoyen may mooy xool nañu àdduna yëpp gis nañ yëngu yi fa am kon dañu war a wootal jàmm ci biir réew mi dañu war a wootal stabilité te dañ ko war a dañu war a wormaal suñu république mais taxawaayu acteur politique aussi dinañ ko def ndax ay acteur politique lañ fas yéene di jël pouvoir fas yéene di ko garder par la voie démocratique en proposant un programme au Sénégalais loolu aussi du ñu nangu kenn naxasaayal ko ndax ay citoyen lañ avant tout mais daal li ñu seetlu tey mooy opposition bi bëggul dem élection bëgg na yëngal réew mi kooku nag ci wàll bu mu mën a doon muy citoyen muy politique duñ ko nangu te ñu ngi woo askan bi yëpp ñu taxaw bañ a nangu lu mel noonu ndax Sénégal li ñu xam mooy élection ci urne lay jaar waaye du jaar ci foqati jërëjëf.